illa alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa yi asalaamu aleykum wa barakaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax hadis boo xam ne al agar ibnu yasaar radiallahu anhu moom ko nettali mu ne yaa ayyuhannaas eya tuubu ilallah na ngeen tuub ci yàlla mu fa inni man mii day atuubu damay tuub fil yawmi ci bis bi mi'ata marra téeméer yoon kon yow jilit bi nanga nga yittewoo ci tuub ci yàlla ci jéggalu yàlla subhanahu taala ci ñaan ko mu baal la mu jéggal la mu yërëm la mu jéggal la say bakkaar mu jéggal la sa gàttañlu mu jéggal mu jéggal la sori bi nga ko sori mu jéggal la fàtte bi nga koy fàtte soo weetee nanga nga jéggalu yàlla soo wetilikoo na nga jéggalu yàlla soo juumee na nga jéggalu yàlla soo gàttañloo na nga jéggalu yàlla subhaanahu wa taala kon na nga yittewoo di jéggalu sa borom di tuub ci sa borom di di ñaan yàlla mu baal la di ñaan yàlla mu jéggal la di ñaan yàlla mu yërëm la di ñaan yàlla mu jubal la moom borom bi subhaanahu wa taala xadis bi nag xadis wax ne bu ama am solo te jara bàyyee xel te jara yittewoo bu baax a baax a baax imaam muslim rahimahullah taala moom moo ko solo ak keneen ku dul moom kon lii mooy xadis bi tey incha allah barakallahu fiikum ahsanallahu aleykum asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu